fédération daayira maam jaara yi nekkee ci Dakar ci njiital soxna maam jaara Mbacke Muntaxa ñoo ngi dox bu baax a baax ci liggéeyu bâtiment dortoir bi nga xam ne moom la ñu bëgg a taxawal ci daara yi maam jaara ji nekkee ci Poroxaan ginnaaw tegum xeer bu njëkk bi nga xam ne amaloon nañ ko ci bi ñuy waajal koor gi dellusiwaat nañu fii ci diwaanu Poroxaan ànd ak ñenn ci kilifa yi nga xam ne ñoo seq liggéeyu fédération daayira maam jaara bi ànd koog ay technicien ngir amal jotaay waxtaan ak kilifay daara ji waaye defaale visite de terrain ak yenn ci études yi nga xam ne dafa jëm ci waajal plan bu mucc ayib boo xam ne plan boobu sax du yem rek ci dortoir bi nga xam ne moom lañu bëgg a tabax waaye day ñeel daara ji yépp bi ñu ñëwee amal nañu jotaay bu yaatu weccante xalaat ak directeur bu daara ji di sëriñ aboo jaxatee technicien yi ak yeneen kilifa yoo xam ne sëriñ Isaaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru mi nga xam ne mooy njiital fondation Maam Jaara Buso bi moo leen fa yebaloon ginnaaw weccante xalaat yooyu am nay kàddu leeral yoo xam ne bàyyeekoon na fa. waaw maa ngi tudd Sémou Diop di ingénieur génie civil waaw ñëw bi fii lu ko waral mooy ndigal jógee ci soxna Jaara Muntaxa waaw donc ñu ñëwoon ci situ Daara Poroxaan pour def euh, une visite de site ndax dafa am projet bi nga xamante ne soxna si daf ñu ko sas ci wàllu étude waaw ak accompagnement te li mu laaj dafa xaw a bëri ndax day laaj étude de sol étude topographique di laaj étude architecturale di laaj aussi étude génie civil maanaam mooy étude béton beeg voir yeeg yooyu ak yooyu yëpp daal léegi nag loolu pour mu am euh, il fallait que ñëw sur le site pour def recueil de données waaw recueil de données boobu da ciy bokk ñu am état des lieux exhaustif du site maanaam l'existant li fi nekk waaw ñu mën a ci li ñuy liggéey mën a xool dan la ñuy saytoo béréb bi nan la ñuy sàmmee yenn yi wala nan la yenn yi di demee yàlla nag suturaal nañu ndax ba ñu nekkee di liggéey ndakaaru yàlla defoon na ba nga xamante ne architecte yi ci seen xarañte dañu considéré woon benn surface donnée ci idée yi ñu leen xawoon jox malgré yoru ñu woon plan yàlla def ñu defoon ci conception waaw muy esquisse euh, esquisse boobu nag ñu ngi ko tuddee esquisse su plan d'aménagement wala plan de développement bu nga xamante ne bu yàlla defee mu antu mu sotti képp kuy ñëwati di liggéey ëllëg ci ngay tënku liggéey bi nga xam ne techniciens yi jotoon nañ ko def ca ndakaaru lataa ñu ñëw ci daara ji mel na ni dafa méngook sax biñ ñëwee li nga xam ne moom lañ fekk sur le terrain. waaye li ciy yéeme li ciy kéemtaan nga xamante ne sëñ Tuubaa amul moroom soxna jaara it kenn la mooy dañu ñëw ba agsi eh, def débat jëwriñ yi am ñu jël parole wax mu dëppoog daanaka li nga xam ne moo ne ci eskis bi te donte sax esquisse bi jëluñu woon intention présenté ko. waaye mbir mi dafa dëppoo ba nga xamante ne yéeme ba nga xamante ne ak li ñu gis ci site bi ñu ne faw ñu présenté ko waaye dañ ko présenté ak ñoom plan de match bi ñu jox mu mel ni da nga jël bi teg ko ci kaw bii yenn bâtiment yi ni mu leen moytoo ni mu positionné woo mbir yi ni mu tombee te wallaayal azim kenn amu ci woon benn information en tout cas ci ñi nga xamante ne participé nañ ci études yi loolu nag di kéemaan di li ñu yéem wax dëgg yàlla techniciens yi fas yéene dellu ca Dakar waajal liggéey bi ànd kook yeneen techniciens yoo xam ne ñu xarañ lañ ci wàllu wi ci réew mi fas yéene ko defee noo xam ne architecture bi ku ko gis ne gongo. jële nañ ci mbégte ju rëy te nag fas yéene xarañte bi nga xamante ne eh, équipe bi xarañ nañ ko ñu def ba lu def lu weesu ñoom seen njort te daañ ci taxaw ci fànn wu ne ndax défi la te défi du ëpp bii. waaw challenge la te challenge du ëpp bi en tout cas sasoo nañ ko te am nañu yaakaar ne daañu génn lu mucc ayib bés bu ñu ko présenté képp ku nekk du domaine dinga nga d'accord ne xel mu sell génn na fii xam-xam génn na fii liggéey bu taaru it génn na fii délégation fédération daayira Maam Jaara bu Dakar bi ci njiital soxna Maam Jaara Mbàkke Muntaxa laataa ñuy ñëw fii ci Poroxaan jaar nañu ca dëkk bu sel bi nga xam ne moom moo di naawel di dëkkub soxna astawaalo di waajuru soxna Jaara Buso bi ñu agsee Sëriñ Basiiru Mbàkke moom Sëriñ Musaa naawel dalal na délégation bi tatagal leen waxtaan ak ñoom waaye rafetlu tànk yi nga xam ne moom la yëkkati woon laataa ñuy dem ci barabu soxna astawaalo bi amal fay ziyaar ak i ñaan damay ñëw fii ci naawel eh, ziyaare si imam Asta muy loo xam ne eh, lu ñu yàggoon a bëgg la eh, tey nag suñ boroom may nañu ko ngir ñu barkeelu ci moom ngir moom kat ñun ñëpp a ko war a xeeñtu ndax jàmbaar ga jàmbaar ga ba indil ñu sunu tawféex gii di soxna jaaratullahi Mariam loolu rekk tax na war naa tax ñëpp ñëw xeeñtu ci barab bi di naawel muy feex goo xam ne sunu borom ba defal nañu ko tey eh, ñu ànd ak waa fédération Maam Jaara bu nekk Dakar. fédération daayira Maam Jaara Bousso bu dakaar ci njiital soxna Maam Jaara Mbacke bintu Serigne Mountakha Mbacke Bachir fas yéene taxaw temm ci daara Maam Jaara ji nekkee ci Poroxaan ngir liggéey fa liggéey yu mucc ayib fas yéene ko ànd ak nag képp koo xam ne def lu baax ñor na la ndax liggéey bi dañu ko yaatal.